sàmbeen bi la ñuy dalal Oumy Samb lébu Ndakaaru ñu ngi lay nuyu. <laughs> Euh, di nuyu ñu toog ci bi. Mm. Euh, le bonjour aux mm. téléspectateurs. très bien ñu dem météo. aywa euh, la début de semaine avec une légère fraîcheur matinale. Mm -hmm. euh, avec quelques rafales de vent toujours sur le littoral. Mm-hmm. la température minimale elle sera pour Kolda avec 17 degrés. Mm-hmm.

du côté de Sédhiou. bu naaj bi defee nii. Mm-hmm. je vous explique un petit peu. Euh, quand c'est bien jaune comme ça veut dire que amul benn niir. Mm-hmm. bu defee yii nii affaire yu weex yi. ça veut dire que niir yaa ngi si biir. nañ nemmeeku tuuti poussière. Mm-hmm. war nañ ko seetlu. ça fait 3-4 euh, jours il y a un petit peu de poussière. dina wàcc mu ngi rës nànk mais des na ba tey quand même. ñu jàll si éphéméride bi. Mhm. marée haute 8h45 et 20h57 marée basse 2h5 2h39 la woon. et puis euh, prochaine marée basse ça sera pour 14h36 les pêcheurs toujours le gilet de sauvetage le GPS et la boussole sur le dos et dans les poches bu ñuy dem géej ñu bàyyi si xel bu baax. La meilleure heure de pêche, ce sera entre 11h37 et puis 13h37 euh, aujourd'hui. Activité des euh, poissons donc euh, dinañ am ay jën normalement demain. incha allah dinañ am jën yu baax. <laughs> lever du soleil c'est pour 7h34 aujourd'hui coucher du soleil 19h14 minutes euh, Fati. merci beaucoup Oumy Samb. Euh, ñu dalal la ci kanam. incha allah ñu koy waxee ci ñaareelu. ñaareelu pàcc bi ñaareelu pàcc bi <laughs> Oumy Samb lañu ci dalalaat ci kanam. ñu <laughs> bàyyi la dem jëli sa ndekki. à tout à l'heure léegi léegi Marcel Maroun.